évaluer la catégorie Agnel, voire même une trentaine. Parmi ces trente, on a choisi la crème. La crème n'est rien d'autre que 8 championnes. 8 championnes la championne des champions Все. ci champion yi nga ni moom la ñu jàkkaar lool kenn ci seen biir mooy jël ndam li kan la ciy daan c'est dañuy xool critère fonctionnel yi tey xar boo xam ne dafa war a jongante war représenter catégorie warul am benn sikk ci wàllu aplomb yi ci wàllu port de corps yi symétrie testicule yi maanaam lu bari loo xam ne dañ koy xool

catégorie Agnel. La troisième place. kan la ci yow place bi. 59. yéeg na podium. 59 yéeg aha. ana Dasari ana Dasari animation tukau tukau aho na malengo yo etatule efe Tikau, tikau, tikau, tikau, animação!

vai, vai, vai, a bola, cara. Tá, já fiz, já fiz. Deuxième place. Wurdur. número Deuxième place, nous vient du box numéro 26. Box 26 Et le podium. Box 26, felicitação! Vai, vai, vou muito cabre, agora, muito cabre. Wow. anos.

kañ la yow la yow la yow la yow la ki ma koy sol yow da di sàq nga yow yow moom sàq nga ci sàq yu njëkk yi la premier point numéro ah bu ma xool numéro bi xam naa kan la labal si oto bi nga jox ma sama verre yi sama verre yi ma doog a jox résultat bi sama verre yi du ma gis bu baax yii. la première place nous vient du box numéro. oh. Merci beaucoup, merci beaucoup. La première du box numéro. Ah. Du box numéro ndeysaan sare kaay sare jege ko ndeysaan tàccu leen tàccu leen tàccu leen tàccu leen oh asiko def da nga jooy da nga jooy bu fekkee coono borom ndeysaan fàtte woon sa xol benn daal de la mu ñëwoon na rek feet fête bi benn daal Aïe cette émotion rapidement avec cette impression. madame Thiam Aïe, bismillah nga lan. ma ne ñun xamoon nañ ne dafa leer parce que comme ni ko Abdourahmane di waxee tey xar bi dafa bokk foo xam ne nii euh, ñun sax xaaruñ ko ci ay añal ak nii leneen la ñuy wax parce que tey dafa nekk xar boo xam ne nii doomu Grand Younouss la Grand Younouss di doomu Mbaaxaan Mbaaxaan nekk doomu Nations Unies direct xar yii nii luñ leen jiñ rek ñoom la waaw xar yi ñu leen jiñ mooy maanaam maanaam lépp lu ñu wax ci ñoom rek ñoo ko def tàcc leen loolu bu baax a baax mi ngi noonu merci beaucoup Les applaudissements, président. Les premiers résultats sont tombés. Voilà, photo. Merci beaucoup. J'espère que tu vas. Très bien, Tu reviens au Sénégal. je vais venir te voir. taxawal taxawal xaaral. tàccu leen ñu ànd défilé. tàccu leen ñu ànd défilé. tàccu leen ñu ànd défilé. ndeysaan. félicitations. et à l'année prochaine. pour la catégorie espoir. Alassane Ndiaye Kaye. Alassane Ndiaye kaay mot ñaan mot ñaan léegi dama leen di ma tari ko léegi troisième kaay premier kaay mu jeex ah? kon ma baaral ko bàyyi mu diig ma diwlin bi diig ma doog a dugal noonu laay def waaye kaw la nga neex fi amoon as pokus jarul sax ngeen may wutal soxna graw ah, ah. tous les week-end naa dem fële Dakar ñëwaat wala bu dee da ngeen fi bëgg a jox soxla tamit ba tey tamit seen yéene <laughs> di fay rek damay daal di bañ a ci kii rek daal di toog c'est bon place catégorie agneau xanaa di wax comme d'habitude rek ah defe naa acte bi benn la rek acte bi benn la kon la troisième. nous vient du box numéro. di ajal loolu ma xool numéro 93. 93 box 93 tàcc leen ko bu baax a baax yéen tamit bu leen soxor bu leen soxor bu leen soxor bu leen soxor tàcc leen ko waay Kobo Kobo la troisième place Gaynde Soledan des Saleka, les saveurs d'élevage de Kaolak. de ah, Liwai. Awa ah, Madame Cham. paré, Neng Voilà, la deuxième place nous vient du box numéro 0. Très bien. am ay béjjén est-ce que takk na daf naa ne takkul collier ah takk na takkul ah a takk collier. xamante ni ci der am na lu weex am na lu ñuul kon ñoom ñëpp am na lu weex ak lu ñuul. la deuxième place box numéro. oh taxi numéro oh la deuxième place nous vient du box numéro 42 42 taxi numéro box numéro 42 taxi numéro 42 ana 42 ana 42 tàccu leen ko mu ñëw c'est c'est l'émotion c'est l'émotion c'est l'émotion box numéro 42 box numéro 42 merci beaucoup Un incident la ça fait partie de la vie c'est des moments où on ne un mais après ça passe en avant merci beaucoup Alassane la première place le violon du número... Merci. Alassane Ndiaye Makhtar Diak taxaw leen nii voilà takkal leen ko dosaaram Mashallah. xar mi ba mu juddoo ba am deux mois avant deux mois waaw. mu jënd ko mu def këram deux mois mu doog koy jox mu rek moom ngay jënd maa ngi moom ñoo ko jëlee Dakar mu jënd ko si procureur Issa Ndiaye muy doomu mbër vraiment bañ koy jël liñ suul si moom lépp mi ngi si moom xar mi magam mi ngi fi. ndax bu tonton Yunus Ba encore Yunus Ba. sachant que je merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Yeah. dige ajal tuuti ñu xool

catégorie bobu ñu évaluer les catégories catégorie agneau Le euh, mode d'évaluation est parce que la euh, catégorie espoir manam ñi nga nañ ñaar donc fokk ñaar bo ñëw si catégorie femelle yi les espoir donc dañ leen di mesurer donc mesurer dañuy jël hauteur au garrot euh, jël aussi seen longueur cervico donc ci noonu la ñuy pondéré après ki nga xam ne euh, notes yi nga xam ne am nañ ko euh, ci la ñuy jël les yi nga wax xam ne ñoo war a qualifié final donc ci noonu la ñuy jël champion yi nga xam ne ñoo ñëw qualifié final. waaw donc ci bu ñu ñëwee ci deuxième euh, tour bi moom lañ def ci final bi. di xool les critères abi yàlla tëdd boobu boo ko waxee bi dañ koy xool xool corne yi. xool aussi aplomb yi tànk yi baax na euh, diggaayu yàq beeg yooyu yëpp dañ koy xool voilà donc euh, premier tour. lan mooy aplomb. tànk yi maanaam ci gàttal. keneen li nga xam ne moom la def donc en général xar yi bu seen différence bariwul trop di nga gis au second tour mu am benn retournement de situation mais des fois nga gis xar bi nekk ci kanam rawee xar yi loo xam ne xam nga kii raw ci 90 rawee la lool pour 10 pour cent yi ñëw comblé ko ba nga war ko mën a def. Euh, très bien expliqué euh, donc sur les cinq euh, de chaque catégorie on va choisir les trois meilleurs Alors, trois il y vraiment du point de vue critère majeur critère additionnel aussi nous du box numéro La troisième place nous vient du box numéro 54. 54 tàccu leen ko s'il vous plaît tàccu leen la troisième place solal leen ko robam président président merci beaucoup As troisième place Banginano la deuxième place la deuxième place nous vient du box numéro box numéro

kaay joxeel ñu première place bi ki nga xamante ne jël ndam li Donc donc l'axe numéro la oh <laughs> box numéro fàtte ko <laughs> eh, box numéro lan la faut la première place as c'est la 16 mois elle vient du box 58 58 vainqueur vainqueur baa ngi nii 58 Modou Niane ñu ñëw ñu ñëw foofu Modou Niane ñëwal kay solal ko ndobb bi sant nañ la gërëm nañ la ñaanal nañ la lu nekk def nga ko ci élevage kaw waaye teel xar yow waaye teel xar mi waaye Modou Niane sànnil ay kàddu euh, ñu ngi sant di leen gërëm vraiment xale rafet ku képp ku ci am ndam yàlla na la jig ndeysaan loolu neex na daw na yaram félicitations champion félicitations daal di ciy topp ndeysaan lii moom nga xam ne que léegi champion yi ñu ngi fii ci biir dëkk bi waaye ñu ngi ci biti gaa yaa ngi ca ginnaaw di def liggéey bu mucc ayib looloo feeñ man danaa dem naa ñëw ñaay ba Dramé as le dernier mot kon nag merci beaucoup léegi ñu attaqué la deuxième catégorie. Merci beaucoup. La troisième place, catégorie Espoir mal. nous vions du box numéro Benjamin. Du box 38. Box 38. box 38 góor gi ñu lay dalal di kontaan ci yow Ngom ay te ñu ngi lay dalal daal nag di la féliciter yow itamit ci ancien yi nga bokk nga daal di jël dosaar bi nag daal di koy jox xar bi ndeysaan jërëjëf Ngom Ngom noo gisee élevage Kaolack euh, kontaan ci lool di ñaan yàlla élevage Kaolack jëm kanam gërëm président nga xam ne moo organisé tey di gërëm di yëpp yëpp ci gërëm sama rakk Ablaye Seck ak éleveur jógee Fatick Seck ak Babou Ngom bi jërëjëf. jërëjëf ngeen tàccuwaat loolu bu baax a baax. Nous vient du box numéro. La deuxième place nous vient du box numéro. Hmm? Nous vient du box numéro. Hmm? Numéro. deuxième place nous vient du box 81. 81 tàcc leen ko mu ñëw. 81 yéeg na podium. très beau. très très beau. très beau. Deuxième place, première édition, Saleka. Mal espère. Vainqueur de la catégorie Espoir Mal. Soxna Ndiaye Kaye. Madame Thiam Kaye. en ki ngeen àndal bu leen neexee moom itam mu ñëw. ñëw leen. xamal ñëw. L'ovion du box numéro ah numéro pourquoi première place vainqueur président il a 18 mois. Il a 18 mois. L'animal a 18 mois. Il a des cornes. Hein? Il a une robe bah. blanche et noire. 58. 58 donne 58. 58. la première place gars bu kenn ñëw. bu kenn ñëw joxal jigéen ñi ñu daal di. et la troisième place. qui vient de Nioro ndeysaan Nioro di rip di rip dinaa ñëw ñoro de. dinaa ñëw Nioro. waaw waaw. merci beaucoup madame Thiam la wax. incha allah kontaan rek yàlla wax waa Porokhane. du wér di merci beaucoup. sant nañ leen gërëm nañu leen feet bi neex na de. léegi nag ñaari catégorie rek a des catégorie femelle adulte ak mâle adulte ñoom ñaar rek a des léegi C'est bon. C'est bon. formé ñu bari encouragé ñu bari champion def na fi lu ne ci élevage ba tàcc waatal leen ma ko ndeysaan borom ferme daaru mi nam waaw ku yàgg honoré éleveur Kaolack yi moo nekk nii ku am sa gan ferme mu neen loolu mu libéré ko ñëpp la xale yëpp ak man mi sax laay wax même suma génération moom allah abukan bu kaw la la di ñaan abukan bu kaw la abukan waaw incha allah balaa maa ñibbi dinaa jaar foofu man boo ma joxee pël-pël sax ma bëggee ko sagoo ko yóbbu xanaa xanaa leer na man ba dara dama lay wax ni la et la deuxième place il nous vient de du box numéro du numéro yi mooy yëngal samay action la deuxième place nous vient du box numéro oh. elle nous vient du box numéro elle a combien de mois elle a 30 mois elle a 30 mois mais booy xarit man am 30 mois fu bëri bëri 30 30 30. Indovian box numéro. box numéro 80A. 80A yéen yéen 80A. 80A yéen ña pojoon pojoon. 80A yéen ña pojoon. Sële kañoo premier. ndeysaan ndeysaan la catégorie SS femelle adulte le vainqueur yayi yaa ko benn moom elle a vingt-neuf am na collier am na lu weex am na lu ñuul cornu la également cornu la comme la box numéro box numéro 80 bay 80 bay 80 bay anamu

en tout simplement de les féliciter de les encourager Nan, merci mille fois pour ce beau travail que Kaolack puisse s'épanouir merci beaucoup Et enfin, Les adultes. ay brillant moo ci nekk. xanaa da nga yoroon xar bu am kii am na góor yoo xam ne am nañu ko. sama

liggéey set mu sell moo fi am solo boko ko ak gëm-gëm yalla da lay jàppale parce que teraanga bu ne mi ngi élevage la doon déjà ñun sax dañuy xaw a sectariser tout ne éleveur laadum yi ay noble ni comme ni ko Pape waxee. donc lool c'est un cachet fort bobu benn la deuxième bi mu nekk euh, ñi ñu doon jappalé ñom àlla Tidiane vraiment Bamba mais aussi Bilal Bilal si ñun la bok il est membre du jury national te jury national bi comme niñ ko waxé association yi nek FENACO ñoo délégué ay mandataire, ñu représenter le biir commission scientifique bi si bureau commission bi am ñeneen ño xam ne lañ délégué pour ñu pour ñu représenté aussi si jury national ño ñoo am nañ ben xam-xam ak ñu del indi ko ñu ñun ñu kaw moo motax Dakar lañ jógee ñew on peut être membre du jury donc da fay ñew comme kenn ko xam da fay suppléer le jury c'est vraiment beaucoup naa vraiment aussi il est membre du il peut le faire mais peut pas être et je tenais à le préciser Je aussi le liggéey. trop trop beau. trop beau. trop beau. ale berendi ale ale berendi ale ale berendi bay bay la deuxième place nous vient du box numéro du box numéro la deuxième place maanaam ki jël deuxième ci catégorie mâle adulte mi ngi jóge ci box numéro oh. box numéro ah, ah. oga oh, box

voilà mesdames a messieurs jërëjëf sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ñu ngi kontaan ci li nga xamante ne moom moo fi jot a xewal lépp di leen wax ne la fête a été très belle ñu ngi leen di souhaiter yéen ñëpp kenn ku ci nekk yéen di bëri ñoo leen bokk ci photo bi ñoo leen bokk ci photo bi ñoo leen bokk ci photo bi ñoo leen ñoo leen bokk ci photo bi rendez-vous inchallah en demain bu soobee yàlla pour li nga xamante ne moom mooy la remise des trophées inchallah bu subaa lay doon à 18h merci beaucoup jërëjëf ciao ciao ba suba inchallah waa dama ni moom waa moom nu ko demee noonu Voilà. lii la moom si premier ministre ne kenn ku si nekk yaa ngi jàppale benn xar mi la ndax dama bëgg ñëpp seen éleveurs yi nga xamante ne ñoo ñu asséné dem di liggéey élevage nañ jël seen xol yi ñu ànd fexe doon benn. voilà am solo. mal bi su waree des Kaolack tey tey tey su ko neexee mu des Kaolack en ah grâce à borom mal bi ndax gétt gi ciy nekk man mu dafa France tey ay at kon suñ éleveur li ma leen ñaax mooy ngeen jël seen xol su ko ba mel ni pitax pitax su su peerawu ba bëggante du nen mukk ba bóof ba toj kon éleveur yi nay nekk Sénégal yëpp dañ bokk nay bokk bàyyi nga xam ne élevage ñoo ko war a mën a gis sa kaw a kaw ah, Sizay jël moom. Eh eh